leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee tey nag ñu ngi ci rue 25 angle 2 ñëw ci grand place bëgg jàmm lépp di waajal euh, finalu dimanche bi rek xaar ñu laaj suñu tonton bi ñu ngi leen nuyu. waaw ñu ngi leen di fay. tur bi naka la. Abdoulaye Bousso. waaw Abdoulaye Bousso ñu gis euh, compétition bi Sénégal bokk euh, yow boo leen doon ratifié ci lan la ngeen doon ratifié comme ñëw nañ ba final. waaw non eh, non instant bi début bi moom c'était difficile. mais maintenant moom on a retrouvé notre équipe quoi gis nañ ni taxawaay beeg fépp baax na ñu ñaanal yàlla rek gars yi nekk ci suba incha allah. waaw lan nga ci gis Sénégal waaw dem ba jeex rek fi ñu toll nii moom fecc ba tànk bu dama rek lañ ci gis. waaw. ñun daal mhm. amatuñu lu ñuy lu ñuy xaar quoi dootul tactique dootul dara dem ba jeex rek. waaw man classement bi passé satisfaction laa ci jëlee ah waaw sinon Bamba moo xawoon am ay tuuti yuñ ko rectifier rek Idi Gana tamit ñu ngi koy ñaanal mu dox ndax moom su doxee rek affaire yi day gën a gaaw voilà. Cheikh bi ñu ngi ngi fay. tur bi naka la. man la Lamp Fall maam Lamp. maam Lamp. waa Sénégal Égypte suba final bi loo ci gis ginnaaw suba. waaw mais xanaa ñaan rek ñaan yàlla mi yor ndam may ñu ndam. ñaan yàlla rek di ñaan daal di wax jour yi aussi yàlla may leen ñu ànd ak seen xel ak seen lépp waaw ba mun ñu indil ndam li ñu ngi leen di xaar daal di leen ko ñaanal aussi waaw di wax bonne chance si Lions yi di wax ni am man yaakaar ci ñoom aussi am man yaakaar ñu indil ñu coupe bi waaw loolu mooy suñu souhait ñun sénégalais yëpp loolu lañ bëgg daal jour yi indil ñu ndam li waaw man moom xam nga mënuma classé ndax man supporter laa rek waaye entreneur bi nga xam ne moo yor équipe bi jàng na football mokkal na ko métier la dañuy ñaan rek mu ànd ak xelam tànn lu baax li gën li mën a jël coupe bi loolu la ñuy ñaan parce que moom boobu ba léegi li muy teg baax na au début ba à fin lépp baax na daal yàllaa ngi def ndam ñu ndam lee ñu ñor jël coupe bi lañ bëgg yàlla na ko yàlla may mu ànd ak xelam ba mën a yeggale daal si jàmm waaw loolu lañuy ñaan loolu la ñuy ñaan di ñaanal jour yi jàmm ak wér waaw ba ñu indil ndam li daal loolu lañ leen di yéene quoi ñu indil ñu ndam li daal lañ bëgg incha allahu rabbi jëm ci final bu rëy bi ginnaaw suba Sénégal Égypte yow lan mooy sa xalaat. waaw dama naan ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant sunuy ñaani waajur ak sunuy wasila euh, di ñaanal sunu équipe yàlla defal leen jàmm ak équipe euh, notre équipe bi muy Égypte tamit yàlla defal leen jàmm ba bés ba incha allahu rabbi la ma la waxoon rek laa lay waxaat waaw euh, la ñu teg man pour man ça va li may wax rek mooy. ñi nga xamante ne nekk di wax ay maa lii maa def lii ngir yàlla war a sóori nañu bàyyi ak sunu équipe diw defu fa lii man maa ko war a def yàlla programme li muy programme bu yàgg te incha allahu rabbi bu àndee dogalu yàlla yàlla li mu may bu dee jël ko bu soobee yàlla première coupe coupe d'Afrique bu Sénégal tey ren la incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla waaw. daam nuyu na la def naa euh, daam kenn du la présenté ci biir surtout Medina yi champion nga ñu ngi lay nuyu daam. waaw sëñ Mbacke maa ngi leen di nuyu di leen fay di nuyu waa Dak Médina yëpp voilà. waa tey ñu fekk la sa koñ Damels Sénégal Égypte loo ci wax dam bon Mbacke comme ni nga ko waxee Sénégal Égypte moom c'est une finale comme ni nga ko waxee rek finale kenn du ko joué finale da ngay da nga koy gagné parce que finale c'est la fête boo xoolee eh, deux finales successives kon bii mën nañu wax moom la ñu war a dem jëli ji.

Sénégal accepté ko ñëw joué yàlla def ñu gagné ñoom joué nañ ñun euh, moo ñun mercredi lañ joué ñoom ñu joué jeudi nañ ñëw rek dimanche gars yi defal leen bagage ku nekk dem. match bi jeex. lay fay Mbaye Bousso. waaw ah, Mbaye Bousso tey ñu ñëw fekk la fii ci Dames seen grand place bi nga teg attaay ji di waajal finalam moog Égypte looy wax ci ah, di ñaan yàlla rek ñu doon may ba ndégéen si mu continué ko may di ñaan nag booy lu ñu mën. nañ ko def yokk yokk li ñu mun a def li ñu doon def nii nañ ko yokk ñaari match bu mujj seddal nañ suñu xol nañ ko continuer seddal rek ñu jël coupe bi Sénégal yëpp juboo waaw loolu la ñu ñaan waaw. amoon sa 11 type départ yan jour ngay man même 11 laay def quoi parce que ñu ne équipe buy gagné kenn du ko changé mais am na ay am na ay jours yu doxagul quoi ñoom laay ñaan yàlla ñu dox comme sama booy bi dëkk fii Gana Gueye mu dox même su fekkee benn bii la ñu nar dugal pour gañee mu dugal ko. Ah, man loolu moy sama yene simon moom. daal Gana Gueye Medina ñaax nañ ko waxal ak mom rek mi ngi lay gis. ganna gay ñu lay ñaax ñu sa ginaaw su doon benn bi mo am ci marché bi yalla nga ko duggal ma ngi leen fay. tur bi naka la Lamine Sonko. ma Lamine Sonko tay ñu ñoo fekk leen damas nga nekkon adjoy coach ndam sa yalla sa duko ñaanal suñu borom yeeram ko tak xare ko aljana muy coach Mbouti Pom Ousmane ñu lay laaj ci final bi di ñew senegal naka la mëna jouer. Ah. en tant que adjoint. noonu dañuy sant yàlla rek xam nga final moom dem final moom yombul dem final yombul mais bu ñu ba dem final bi lii ñu ñaan yàlla rek mooy nañ góor rek gën a yokk ñaan taxaw taxawaay boo xamante ne ba suñ ko taxawee wax dëgg yàlla yàlla war ñu mën na may ndam parce que sonn nañ trop de ay quart de finale demi finale finale mi ngi nii nag bii nag moom na jëpp manko rek xam nga comme la ñoon manko wuti ndam li nañ continuer manko boobu rek ba jël ndam li manko ànd ñibbi su ko fête yow en tant que adjoint coach yow boo doon teg classement yow looy teg. man ak naka la Sénégal war a joué. ah man de xam man man dafa ay 4-3-3 parce que paa yi dañu doon wax naan ni avion bu amul laaf du naaw donc 4-3-3 boobu wala ko mën a joué waat mais boo amee Nampalys devant la défense war nga mën a am un Pape Gueye benn Gana ñu dem offensivement buñ ko joué si kaw boo fa amee abi wala wala wala wala kii wala Famara. dafa am ñaari flanc mom na fonctionner rek soit Ismaïla mu démarrer parce que ben match la wala nga bayiko ci si biti bu ñe nee prime deuxième mi-temps nga duggal dugal mu jee parce que dañuy ñëw pour gagner bon ñi ils sont cuits parce que déjà ñom dem nañu fool yépp dañu énervé parce que ñu jëk a casse problème arbitrage nee nañ waa ji arbitre seen match bañu bind gaay parce que nee nañ même arbitre seen club yi sax non lay li sonalé gaay né momay nee arbitre donc frustration bobu lañ ko jé dem ba sé dem mi-temps bi salat ni mu taxawé xam Salah ken xamul koy wax mais dama taxaw di angle arbitre du yuxu wo arbitre ba gaay yi jëlé ko fa loolu yëpp war na si mun a jouer et puis trois trois prolongation ku jouer ku ko jouer boo résisté benn mi-temps no deuxième mi bi doo am répondant mooy que ñun bu ñu ñëwee li ñu am la ñuy andi fukk de jeunesse la dañu leen bloqué accéléré bu ñëwee ñun dañu leen prix bi hop ana waa parce que gën a soxla la gën a soxla kon ñu ñoo ko war a gën a mën a soxla boobu tamit beneen beneen aspect laay wax mooy ñi di toog si tele yi di wax nañu dimbali ngir yàlla war a suuli équipe bi mi ngi dem nañu arrêté seen wax ji bëgguñu fi ñu wax fi ay maa fi def lii équipe du def lii du def lële gis nga sóor mi yooyu dem nañ jëyi seen coupe d'Afrique kenn déggu leen ba jël coupe bi li ñu soog a wax nañu dimbali rek ñi yàlla war a sóor seen wax yi ñuy wax nañ ko arrêté rek na ñëpp ñaan bokk benn kàddu bu jëm si équipe bi ñaanal booy ndam booy bu ñu gañee ñu ñoo suñu ndam la ñun ñëpp dëkk bi neex ñu feetu au moins waaw. mais en tant que médecin Gana Gueye lan nga koy ah xam naa ne nag mboo jour la tamit xam nga tamit méforme dafay am si jour hmm. waaw dafay am loolu ça arrive na gëna gor gorlu rek yalla baxna waaw parce que tamit moy limbay di wax ni rek xam nga sax mëna na jaar si tànkam kenn xamul nit ñak na dox ñak dox ba final mu duggal bii final ba ñu na mom la te yalla ko yalla defal. way oui alaykum ma lay ñu nuyu yéen ñëpp comme limay wax rek sama grand yi pratiquement wax nañu lepp quoi man la biran biran ja quoi. biran lan mooy sa xalaat oui mooy li grand wax rek comme ñoom ay anciens internationaux donc euh, lu wax ci football rek pratiquement loolu la quoi comprendre nga donc euh, la finale ça se joue pas mais ça se gagne parce que boo xoolee euh, équipe nationale booy ils jouent avec leur propre valeur amul benn équipe boo xamante ne mën na leen quoi donc man li may wax mooy c'est nañ am engagement ci li def yépp et puis bañ di bañ di rater yenn occasion yi quoi occasion bu ñu am nañ ko

bon cinquante cinquante mais man li may ñaan mooy Sénégal gagné parce que ñun Sénégal comme euh, Sénégal musul euh, jël coupe te bi mooy deuxième finale am consécutif kon nag dañuy ñaan yàlla yàlla jàppale ñu ñu jël coupe bi man gëm naa ni man dama gëm ni Sénégal sax day jël coupe bi incha allah ci kàttanu borom bi bu soobee yàlla man gëm naa loolu. mais effectif bi ñu tegoon bii passé rek waaw effectif bi ñu tegoon bii passé buñ ko tegaatee macha allah. dina baax daal du bu soobee yàlla du ñu amul dem amul demal maa ngi ñëw waaw. Pape Gueye Pape dama koy départ loo pour mu football à gauche parce que côté gauche bi tamit da ciy baax quoi waaw day équilibré parce que fii soo am euh, droitier fii am gaucher équipe bi dina dina équilibré équipe dafay am gaucher parce que bu amee gaucher affaire bi gën a mën a dox waaw Pape Gueye du koo xamee dañ koy teg ci maam bi dañ ko war di ko football loolu c'est très normal. waaw bu ñu demee nag ba nga xamee ni ñun ñoo mëne waaw boobaa bu ñu xoolee ki nga xam ne li mu joxe ah, kii na ñu génnee ko ko dugal la keneen. en tant que Médinois. waaw Idrissa Gana Gueye dëkk Médina te kan bi waroon na def meilleur kan yow lan nga koy ñaaxaat li ma koy xanaa mu gën a góorgóorlu rek gën a gën a defaraat taxawaayam te tamit muy bàyyi tournée bi tey téye suñu bal di ko teel a paas di ko teel a joxe

xëy na ñampalis moo ko xaw a kii tuuti mais moo ko xaw a nëbba tuuti mais la mu doon def ñampalis mi ngi ko koy defal moom dafa war a gaaw ci yi def su ko defee rek incha allah dañuy dañuy gagné match bi quoi bu soobee yàlla nga déjà bi ñëw ci grand bi dégg ngeen li gars yi wax. xam-xam feeñ euh. na xam-xam feeñ na parce que ñii ay sportif lañu Medina moom macha allah boo ne bëree gars yi dañ la waxal.